ne da jàll ci bëgg la xamal ni nga wara andé sëriñ bi nga xamné mo lay tarbiya ci yoonu yalla ak sëriñ bi nga xamné mo lay jangal xam-xam dana jall itam waxali la ki nga mbokol te yalla tax ak ngay andal te yalla tax nam wara doone mbokum deug deug ak nam wara doone andale deug deug ak namuy mel bañ ne matna deug deug mbok matna deug deug andale mu tambale ci ne la sa serigne bi nga xamne mom nga andal ci yoonu yalla mu lay terbiya nang ko fonku fa fonkel yam da ngay jappé sa bop ab jam jappé ko nak mom ne moy sa sang lo am rek ci lu bax jox ko lepp luy soxlaam boo ko xamee taxaw temb ci fajal ko ko boole jox ko sa alal ak lëggeel ko cam sa kàttan te yàlla tax li wax léegi moom la sara sara bu gàtt ne la dama lay digal sa sëriñ nga fonk ko fa fonkeel yam lépp luy soxlaam boo ko xamee taxaw temm ci fajal ko ko ngir yàlla